élection dafa du fi sax faf am loolee la Barthélemy Diaz wax ak euh, Karim Fofana. waaw Babacar xam nga waxi Barthélemy Diaz moom ku ko miin ku ne da ngay xalaat ndax da ko fekk ci jamono ju mu xaw a soppeeku wala jamono ju mu ànd ak xelam. yow dañuy waxtaan rek parce que Barthélemy tamit ñun waa Ndakaaru leen dañu fi juddoo ni moom mu war ñu respecter. je pense que ci weeru diggante avril ak mai bi bi mooy ñaareelu yoon muy jëf ay jëf yoo xam ne jëlgati règle la te nit da ngay doon républicain. ndaxte république moo tax Barthélemy mën a doon candidat di gagné ay élection ñaari at ci ginnaaw fichier électoral bi baaxul dañuy sàkkal pare mi ngi nii gagné na doon na maire de Dakar dépose dafa déposer liste boo xamante ne dafa respecter parité def li ci war ñu élire ko état defu ci dara ñu ñëw ci élection bi nga xam ne mooy législative balaa may egsi ci loolu sax ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy cabinet ñun ñëpp ñi nga xam ne ay ministre lañ dañu am ay cabinet ministériel dafa am ay loi ak règlement yoo nekk yoo xam ne dañ ne cabinet ministériel nii ak nii lañ ko defee Barthélémy Dias moom day toog ba saa yu ko neexee rek mu ne diw sama cabinet la bokk diw bokkul sama cabinet donc il respecte pas les lois de la république ñu egsi waat tey ne dañ jëm ci élection législative non mais bu ko fi fekkee à partir de janvier bii passé dafa am loi décret bu bees boo xam ne day régir parce que dañ gisoon ne dans les cabinets des mairies dafa bëri agent ba nga xamante ne mairie yi am na ci ñoo xam ne du ñu am moyens yu ñu exécuter seen dañuy toog rek di jël xaalis di fay ay nit weer bu dee pour de la clientèle politique alors que ñun dañu am mission ñun ministres yi dañu réglementer suñu cabinet man nii boo bëggee nommer euh, kenn ci sa cabinet da ngay bind au secrétaire général de la présidence au secrétaire général du gouvernement mu valider la ne la lii c'est conforme à war a a loolu ñaareel ba ñu ñëw nga ne élection lan moo ko gën a important